jërë ngeen jëf salaamaaleykum ami internet wasaare làmb salaamaaleykum ami internet Jël bi TV waar nañ leen siyaar leen ba tey ñu ngi ànd ak production ñu jëm le 8 mars grand combat nag war a dox ci diggante Madji Madji euh, ki nga xamante ne mooy Mbacke fay waaye ba tey derby la waat rek diggante Géejawaay écurie Waalo ak écurie Parcelles nee naa du yomb waaye taxu naa fekk ñaari champion ki nga xamante ne mooy ngook Mu Ngaaka ak ki nga xamante ne mooy Am Géant bu leen ma ko jàppee tey dama xiif nuyu naa la Am Géant. waaw Matu fay naa la ginnaaw bañ sant yàlla julli seenante bi di gërëm samay ñaari waajur du nuyu ñu ma àndal ku si mel ni Gaynde ak Tafa xam nga du nuyu waay géej waay yëpp di la nuyu yow du nuy Ousin du nuyu sama adversaire moo ngaaka xam nga du nuyu waay géej waay yëpp yëpp yëpp yëpp kullu du nuyu suñu waay écrit waay géej waay mbooloo ku mel ni doomu Kajoor Aline say Jackson. si sa waalo am na combat le 19 maa ngi koy ñaan ko yàlla may ndam xam nga nu nuyu suñu mag suñu lépp muy la de Guiers 2 nuyu ñëpp daal waaw salaam. Aïcha jaajëfal nañ ko moo ngaa naa la. fay naa la matu di la jox sa waay di bëggee ñëpp di bëggee waa ginnaaw raage ma jóge di leen siyaar bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu di wax la 8 mars suñu yëf la man sama yaay rek laa am te moom laa fi dese wax naa ko chaque jour day may ñaanal <clears throat> ba ma ñaanalee rek lu mu bëgg dama koy am jour boobu sama jour la damay ñëw jàpp kii am am yi defaral ko bagage dem xooli leneen si kàttanu yàlla ak. mais ce que dina yomb ci yow. <coughs> ah comme adversaire la rek. adversaire la de Pikine yab na géejawaay ba pare. yaa wax loolu yàgg na. <laughs> Amsa. dégg nga lu moo ngaa wax nee na Pikine yab na géejawaay ba pare. waaw ah, Pikine yab na géejawaay waaw mais moom na fexe def loolu moom defe naa mosul dugg géejawaay moom na fexe def loolu moo gën mu koy mu koy jéem a xool si ñeneen. man lépp moom kay nee na bañ ko joxee euh, euh, adversaire boo xamante ne géejawaay la nekk rek moom nee na dafa kontaan. non man am géant moom lépp lu ma war a def moi seul quoi maa koy dund mais sama yoon nekkul ci kii def na lii kii def na lii diw def na lii man sama drapeau ma ñor te gëm naa ne sama drapeau fu mu yegg maa ko fa yegg waaw. mooy damaa dégg nag mu ne moom ndeysaan dafa bëgg yaayam dañ ko si encouragé ñëpp bëgg seen waajur te nee na day daan jox ko yaayam. Mm-hmm. si nga programme beneen kado de te xam ne du jël bi moom incha wuyul waaw noonu la demee moom ceexa day ki ne laamu di wax nii rek xoolul ba pare taxul ay veeram moo tax hmm. bu taxoon ay veeram du laal ngaaxa bi hmm. waaw parce que ngaaxa moom boo ko laalee rek daanu ngay waaj te gii lu mu koy wax du bari bu yeboo nga liggéey sa tànk yi toog sa tànk liggéey sa kaw gi indi doole ju wóor ma su ma jugee fii bu muy ñëwaat fii arène nationale kenn du ma xàmmee naa def lu wóor loo xamante ni ma la jàppee rek laa mu jeex parce sama làmb bugguma muy yàgg dama koy jàpp daan mu ñu ñibbi parce que samay supporter dama leen teel a libéré loolu laa leen tàmmal te looloo neex si man xale laa te damay ut doole te lu mu teg sama yaram bu mu ko ëndee dama koy am. ko dégg li dama koy envoyé benn message. ban message. moom nee na mu liggéey sama tànk yi defar sama kaw gi te xamul ni moom din bu muy entraîné ñun ñoo ko gas din bu muy entraîné Guédiawaye Malibu ñun ñoo ko gas. mbaa du ngeen fa ñoo ko gas ba mu non bu ñu fa dajee entraînement la rek na nekk si ba ma ne mais moom moom. yàgg nañ di ànd ak ñun ñu koy diriger foofu kon bu toogee di wax fii moom da man dama ko am maîtriser. kon yàgg nga kaa diriger. non dama ko am maîtriser moom. Ah. dama ko xam xam ñu muy àndal Malibu Guédiawaye ci jeng ya din yooyu muy ñëw. Ah. ñu ñoo ko gas ba mu xóot. dëgg la fa ay bagage ba ñoom ñu am accès ñëw di fa ñëw kon dèjà loolu jarul di wax. Hmm. waaw yàgg na ñëw ñu koy diriger du benn du ñaari yoon. léegi kon say tànk doo ko liggéey. non kii jarul liggéey yenn liggéey yi sax. lan moo tax kii moo ngaaka la de. non moo ngaaka dama koy nit mooy faj dof ah. te dinaa ko faj. <laughs> moo dégg lu mu wax. dégg naa li mu nee na diini ñoom ñoo ko moom waa coo jibu mais mën nga gis nga jiitu jàq taxuta doon imaam jiitu jàq taxuta doon imaam te da ngay gis nit ku jege ñun ñu noddu te du jug julli ji loolu day am te nit day jege ay diin te du koy yëg. kon moom daa jege diin waaye du ko yëg. mën na nekk parce que ñun Pikine la ñuy jugee. di dem géejawaay di fa entraîner. <coughs> yéena ko ñu ngi ko gasal. ñun am nañ fu ñu entraîner de chaque jour fu ñuy entraîner fu nekk la ñuy entraîner dañuy wër parce que dañuy làmb la ñu wax lu sa xel dal rek nga dem def si te diin yooyu bu soobee yàlla suba suba fa laay entraîner se kii xoolal lu lu metti laa koy yan. Eh. mais ñeme na moom. moom bu ñëwee din ya. waaw man maa koy dalal. ñoo ko mbër jëlal montagne bi moo gën a diis baa ñoo bëggoon a. oyof uh, na yéen gas montagne ba pare. fa dem gis nga liggéey. liggéey du diin du dara gis nga nit fépp foo mën a nekk war nga fa liggéey sa biir ne sa mën nga fa entraîné. diini ci la bokk de. non diini mais dama ni la bu la liggéey taxee jug entraînement tax la jug ñun géej waa lañ dëkk ñun bu ñu liggéeyul dañoo tooñ bu ñu liggéeyal dañ dañoo yebaatee parce que ñun da ngay teg ñetti pas yeeg géej gi ñoom dañuy jël oto wala ñu lang super ñëw mënuñoo yem ñun ak ñoom lu muy imposé jaru ay xaw ma dem jaaxle taxaw kii moo man moo man lan la def moo maa ko may sens bëreeg moom moo benn combat la am te mu daan man xeebu moo ko nag mais su ma ko daanoon du ma jibile ak Serigne Touba victoire daal victoire la victoire ay ngaa dugal sa tàng rek adversaire bi toog xam nga lamb day saf. Eh, lamb ju neex lañ bëri. Touba Dakar Dakaru Njaareem kooy takar naa xam nga. kon moo daf maa jël xamuma te si eh. kàttanu yàlla. su neexee suñu borom dinaa ko daan jëlu bu yomb dem jox sama yaay kado ma de man su ma si lamb di sóor di sóor mbër naan kii ba xam xam naa xaw ma ko ma dem teeg sama ngeem làmb la ñu wax dañuy daje ku nekk te làmbul naa la wax leen reenu ñaambi la kenn xamul fu muy demee du ñu ne nag li war li war yëpp dinañ ko def li des ñu booy ko si loxo suñu borom suñu ñëwee jour arène nationale jour boobu li fi am yëpp maa koy def maay neexal maay bëre maay jàpp maay daan. di ngeen xeex. bu xefe bu xefee ma dóor ko mu daanu. lu leer laa lay wax. dóor mu daanu. njëkk sooree njëkk soor taxutoo njëkk ñorale. Ah. aw mën nga tey mais moom mooy njëkk a sóor mooy njëkk a ñorle. moo mii moo du sóor du ñorle. Eh. moo mii du sóor du hmm. barki alxuraani karim tam ma di waat si làmb mais kii jëmm ji ma gis jëmm ji ah, waa ji. vaar de. waa ji nii nii nii naa leen vaar de. waa ji dinaa war bu ñàkk xorom. bu ñàkk xorom. Oh, man xam nga bëggoon sa jël combat sama adversaire bi kuñ ma joxoon xaw a jànge di moo tax làmb boole ma moom rek. mu hmm. bëgg bëre aussi tamit. nee daan bu ñàkk hmm. xorom. man kii parewul. Hmm. kii moo waroon bëree sama làmb ji paase. waaw ñu jox ko ko mu xool xool xam ni baaxul mu daw. dawkat la ko dawkat la kay. tàppee kon kon avance bu mu ko daw. bu mu ko daw tam mu demaat ba seen waa ñu naan ko kii baaxul mu dem xooli leneen. kon vaar lay génne. ñii ay tàppee lañ duñ bëre. dañuy xaar ay tàppee ngeen du ngeen bëre. matu looloo tax ma gën a jël combat bi parce que man bëgguma ko may xalam damaa nekk as góor bëgguma ko yàq sama der keroog ba ma fi ñëwee pour ñu wax ni le 18 ñoo woon man ak moom man le 18 maa ngi ko doon préparé bu yàgg hmm. préparé na ko 4 si ginnaaw man ak papa Dambay yaa ngi jëloon ñu dem ba laamu ji des 15 jours mu jaga di feebar andro bi daal li ko ñaan yàlla na ko hmm. kon man du ma jël ay combat ay 15 jours 10 jours parce que man su ma jugee ay ponkol ñooy jug su ma jugee tamit nekkul n'importe quoi damay gis komba jon jon tamit bëre hmm. parce man tamit ndaanaan laa taguma sama bopp te am na ñoo xam dama leen wax ay combat 15 jours combat 10 jours. bi saf na parce que moom seetaan naa interview. mu ne seetaan naa interview mu ne ko. parce que dafa jege. Mhm. waaw. loolu laa doon bañ mbër day mbër. mbër day pare mbër day pare mais man mbokk bay jël ay combat 15 jours. Mm. yabuma samay mbokk bay jël komba 15 jours. mais combat bi am na temps de. nee na bu ñëwaatee arène nationale doo ko xàmme de. ñun géej waa nañ dëkk dara duñu jaaxal. Eh. gis nga ñun deretu géejawaay mooy daw fii. ñun dara du ñu jaaxal si àdduna. géejawaay deretu géejawaay mooy daw deretu mooy daw foofu ñun deretu pikin mooy daw ñu yaram. waaw te buñ jugee ginnaaw raay yëpp jóg. Mhm. ñun xoolal làmb benn fan si kàttanu yàlla boo ñu ko waxee ñu pare dem suñu yoon parce que xam nga lan moo tax toogu ñu di préparation benn làmb làmb lañ fi nekkal te ay xale lañ làmb lañu bëgg. Mhm. man tey làmb li ma si war mooy li ma entraîné teel tëdd lekk ba suur nelaw di ñaa wax sama yaay mu ñaanal samay mbokk topp ma ma ñëw arène nationale moo tax tey jii nii chaque jour li ma war a nekk dama siy nekk mhm. li si des nag ñu baakaar suñu borom waaw ñu tàggatoo waaw nice maa ngi woo waa ginnaaw raay di woo booy yëpp mhm. waa kaw tund waa Texas waa ga waa Kër mataar cinquante Pout waa Kër Mbir jandeer tund jandeer bi yëpp maa ngi leen di woo di leen wax ñu ñëw ci sama làmb ji jàppaat si bu baax a baax di gërëm saa moori borom yëmbal di ko wax nag gën a jàpp waaw làmb ji sa làmbu la saa di woo sama waa staff yëpp di woo waa ginnaaw raay yëpp sama booy yëpp ñoom yuusu ñoom ginax ñoom ndong ñoom bamba dumbul njaay faal jili bax daat boo yëpp ay ñoom daada fay boo yëpp nañ jàppaat waaw ñu ñëwaat arène nationale yëngalaat ko bu mu yëngu jàpp booy bi daan ko dem xooli leneen ñii du samay sax adversaire xëy na làmb téré di rek ñuy soow a ñëw nii waaw di ngaaka ngaakalu kii moo ko jàppee mu xam ne du ma ngaaka. matu matu matu sax xam nga moo def maa yeb. nu la yebee. moo bu toogee naan ma duma adversaire am. au contraire man maa waroon wax loolu. mais dafa mel dara xeeb nag moo benn combat la def. Ah. man ma def quatre combat kon bu taxee naan ma duma adversaire am kii xam naa lu mu añee moo neex wala rek mais bu toogee naan am genre du sama adversaire kii dafay wax lu ko neex dañu waxante dëgg. quatre combat laa def moom mu def benn komba kon maa ko may loxo bëri moom. te lu ma gën a neex ñu mu woo ñëpp foofu maa ko moom. moomoo ko foo mu woo ñëpp maa ko moom loolu ma gën a neex si combat bi. fi ngeen daje dafa bari de yéen duñu géej waaye. <laughs> duñu jandeer ba nga bëgg yéen a ko bokk. du nuyu waa Poudan. <laughs> Uh-huh. Bébé Walfu sama xarit la sama seex la eh, sama lépp la eh. moom mooy samp yow puut Bébé Walfu mooy samp yow kii képp ñu mu woo ñëpp duñu jandeer beeg foofu yëpp sama zone la. kii day xaar non kii day xaar man bëggu ma woon tudd sax ñooñu. mais xam lu mu ko tudd moo tax ma tudd ko. Eh, bu mu leen tudd nag. waa Pire waa Thiaw noota guy joma Morolan di nuyu gaynde mooy borom noota mi ngi ne lee xam nga di nuyu booy noota suñu mag la suñu lépp la fu mu tudd yëpp maa xam moom loolu ma ngay nees si làmb ji xam nga mooy loolu en tout cas de toute façon daal combat ñu ngi siy woo waa Géejawaay cat ba cat. surtout waa mars jeudi waa ar Double Less sama waa koñ. Eh, moo ngi génnee kurpeñ ñi de. non moo ngi am si làmb ji rek simbakat la xam nga boo dëkkee Caaroy ak Pekin moom da ngay simb quoi ñoom simba la leen gars yi gën a xamee na leen bàyyi ak loolu noonu noonu ñun duñu ay ngaaxe si làmb yàgg nañ si làmb di ànd ak suñu mag Jackson mhm. fépp fu mu teg tànkam teg nañ fa suñu tànk mhm. xam nga di nuyuwaale moom it garaawam suñu xarit suñu lépp muy fils de Sadio mhm. di ko en passage di ko wax ragal a féetee day xañ moom na indi moo moom na indi moo Jackson indi ma eh. xam nga eh. benn xam nu mu demee quoi waaw maa ngi nuyu ñëpp nag nuyu sama yaay bu baax a baax di ko wax yaay booy mm-hmm. tubaab bi dama koy jël indi la ko kado boole kaak leneen ak leneen ak leneen yow xam nga ma xam doo ngaaxa xam nga di nuyu sam papa bu baax a baax a baax a baax sam papa maa ngi koy nuyuwaat bu baax di nuyu tamit sama papa Abdou Ndour kooku sama papa la sama lépp la xam nu ma koy waxee chaque jour parce que day jël àllam bu weex tàll di yàq si man pourtant am na njaboot am na jabar am na doom moo na ko fa def foofu mais man su ma xew la rek day bàyyi itam lépp nekk si man xam nga du wax Aliou Diagne Aliou Diagne taalibe suñ Modou Kara doo ngaaka lamb ji sal lamb la xam nga soo ñëwee da ngaa war ñëw soo ñëwul da ngaa war a ñëw yow xam nga nu demee bu baax a baax kon ñëwal di woo Baba Dia si combat bi ah di woo sama papa Khalifa tamit fi sa waalo di ko ñaanal ndam si combat bi xam nga di ñaanal doomu kajoor ndam xam nga di ñaanal njaabi soma doom day génne yàlla na ko yàlla may komba may ko si ndam xam nga di nuyu ñëpp ñëpp di woo waa mafia parafoot bi waa Marzodi mafia MS bi si mel ni Serif su ma nee Serif rek jarul may tudd keneen Serif bu jazz di si woo bàcc di woo Ahmed Lo xam nga di woo bët bët lamb ci sa lamb la di si woo Zik Xaadim Mbay Galas ñoom ñëpp seen lamb la di si woo sama rakk Ali si woo Pape Mama Fall président naar suñu président AIC lamb ji sa lamb la xam nga di si woo ñëpp ñëpp président kii maire Ahmed Aïdara ñun jëlee ñu bolok rek sant ñu la leneen bëgg ñu ko ñu may xaalis bu ñu noosee. mais am sa booy bi day de baa xam nga loolu. Ah, gis naa ko. booy bi ci 15 jours combat 15 la jël waaye dafa duy stade. nga olof ñaar dafa ni wax sa mbaax waaye wàññul sa mbaax dara. Mhm. man soxoruma mhm. lu tax ma gën a bëgg bëre moom loolu la. parce que keroog am na jom ba mercredi sax la bëre. maanaam du ngaaxa quoi du ngaaxa quoi day ngaaxa ngaaxal ñun xam na nu mu demee mercredi la bëre du stade bi ñun fekkee nañ lépp. parce que mm. man maa woon si côté subateera mi xam nga di ko wax laamu noonu la mbër da ngay mobiliser parce que Ouzin dafay bàyyi ay yitteem bàyyi léppam concentré wu si ñun. Mm-hmm. kon ñun ñoo ko war a fay bor boobu ñun rus nañoo ñëw làmb ñun du ñu indi ay supporters buñ daree def loolu toog suñ kër bañ a bëre moo ñu ko gënal ñun géejewaay nañ dëkk encore une fois géejewaay nañ dëkk su ma nee géejewaay nañ dëkk ndante yëpp xam nañ moo ngaaxala sax ngaaxala incha allahu mars dinaa ko faj mu nekk nit bàyyi ngaaxa ngaaxal bu muy jéem a technique waaw mooy loolu noonu. ayca nii lañ koy defee saa su ne rek Ouzin Production di leen jox dig daje di leen le 8 mars incha allah loolu la jàllale waat. waaw damaa Fada. Fada Fada bi sama waa koñ. waaw Kalende ñoom Nante Yoro Nante ak Yoro Kambel Birane Alpha. sélection Amzin bu nekk koñ ba Umar Sagna xam nga Déthié waa bañ lal bi ñëpp combat bi seen combat la ñun dañoo bëgg leneen. bëgg lal amul. non ñun mooy loolu noonu bàyyi man gars yi su may nelaw sax dañ may garre waaw moo ngaaxal na ñëw ma daan ko jël. ayca sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di leen jox dig daje rek ko fàtte le 8 mars.